bu ñu agsee tekki defar baas yi nabi moom du defar baas fu mu taxaw du am naaj bu leen way de wa islaalun bi aynin fii hajiirin fa irhaasun lahu kullal uyuuni bu leen ko way mani nabi bokk na ci lii wane ni la mooy moom jamonoy digg njolloor mu tàng jër fu mu taxaw du am naaj gars yi bu ñu tekkee marchandise yi wàl ma damay jàggale yenn tama yu ndaw yi yéexati ñàkk la rombati réew mais nabi moom du ci wayante ñoom nag seen wayu arab la ñuy way comme ay wolof laay waxal moo tax waaye moom du ci wayante xam nga moom nu muy def moom buy waaja tekki moom tekkeegul tekkeegul ëmbam day teg ëmb bi ker gi ñëw ne keral ko du am naaj te du am bâche gars yi ñiy jënd ñoo ñëw di ko xaar pour mu tekki te xamaguñu lu mu bu tekkee ku ne naan jàpp naa bii jàpp naa bii te waxagul ñaata la looy jaaye mbaxane maa ngi koy jaayee 1000 francs am déedéet du ñu xaale lu mu laaj lu waay jël bu ne nangam waaye nag du yokk prix tamit nag moo tax du ñu waxaale lu ñu laaj rek mu jox leen mu jeexal mu jógee ñoom may sara commerçant yu mag yi ñoo ñëw naan ko eh doo ma dimbali rek jaayal ma lii man de tey damaa lambale ku ko jox sa bagaas bu koy laal bagaasee di jar nga ñëw di ko jox lekkam mun la soxlawuma lekk dama ko def rek te yàlla tax te booba doonagul yonent lislaam wàccagul maa ngi dem ba ñu jogee ca tukki ba ñu ñëw di rendre compte may sara ni Khadija dem nañu ba ñëw Khadija ni ko man dara ñoruma ci du millions yi du dara xale bi laa wax booba xale bi la koy tuddee mu ne ko lan mu ne ko nu mu def ak njaay mi mu ne ko kii ñu dàq jaay ñun ñëpp moo jaay ba jaayaaleel ñu Xadija ne ko ah mu ne ko am na leneen mu ne ko lan la mu ne ko fu mu taxaw naaj du fa am mu ne ko ak lan mu ne ko ñun ñëpp dafa amoon ay toilettes publiques mais moom daal li ñu nekk yëpp ñun mësuñoo seet lu mu dugg ci toilettes yi gis nañu daal léeg-léeg dinay dem mais bu dee dem dañoo gis ay garab ñooy ñëw wër ko jaat li daawatil ashjaaru saajidatan tamshi ilayhi ala saaqin bila qadami garab yooyu ñëw wër ko def lu mel ni néeg mu nekk ci biir garab yi bu demee ba sori garab yi taxaw mu wàññeeku du ñu xam nag lu mu fa doon def Xadija ni ko kepp mu ne ko am na leneen lu ma ci jaaxal mooy amul benn montagne bu ñu romb ci montagne yi Makka yi ak Saam yi te montagne ba neewu ko assalaamu alayka ya rasulallah mu ne ko kepp mu ne déedéet dañuy ñëw ba ci montagne taxaw fa montagne bi naan ko waraawadatul jibaalu sumu min zaabin an nafsi faara ayyama shamami may ma benn burdu rek benn mawlaaya wa akkadat zuudahu fiha daruratuhu inna darurata la taadu ala alisami waraawadatul jibaalu sumu def leen ni loxo yi an nafsi faara ayyama shamami bu leen wax noppi leen mawlaaya وراودته وراودته وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمام مولاي أكدت زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العين مولاي مولاي مولاي حيدر دائما أبدا لغي لغي على حبيبك خير الخلق وكيف تدعو إلى الدنيا وكيف إلى الدنيا أقوات لولاه قولاه ولم تخرج الدنيا على عالم مولاي مولاي صلي وسلم بين ناس محمد سيد الكونين على حبيبك الخير ايوه ايوه سيد محمد محمد محمد سيد الكونين وسخ عليه والفريقين من عرب ومن عجب عبد باس مولاي Abdou Bass Mawlaaya waaw Mawlaaya Mawlaaya salli kon boog mu ngoog mani mani yàlla na ngeen fekke déwén <laughs> yal nañ ko yàlla boole defal mani mani kon ndekete Khadija mu ngi laaj ñu ngi koy informé maa ngay dem Khadija ni waa ji may sara man de xale bi sax daf ma intéressé day am gis ku baax bëgg ko wax ko dara nekku moo tax maquereau a ndiig aayul maquereau moo aay maquereau moom day lijjanti rek mbaraan gi ñu koy jox lekkam ndiig nag day gis ñaar ñu baax mu fexe ba ñu ànd sëy am ca Xadija ni Maysara Maysara ni ko ah man de rus naa koo wax loolu ndaxte moom dafa yaru torop kenn daal laa gis muy wax ak moom xaw na ko miin muy Nafisa Xadija ni ko kuy Nafisa mu ne ko ci sa employeur yi la bokk booba Xadija ñi moom cay employé sax xamul ñëpp nafisatun fa dasiisun xayru muttahami xadija ni wu convoqué leen ma nafisa ñu woo nafisa mu ñëw nabi xadija euh, waxtaan ak moom ni ko Muhammad laa bëgg loolu du dara man mën naa waxtaan ak moom ndax moom sa dafa bëgg soxna ku ne am nga koy waxtaanal nafisa damay tënk mu ngi wax ak nabi ama la bëgg a may soxna koo may may bëgg nga soxna mu ne ko waaw bu ma amee kay jël mais damay dajale mu ne ko kii ma lay may soxlawul dajale boo ko bëggee rek ñu may la ko mu ne ko kan la mu ne ko Khadija nabi mel ni ku tiit ni ko Khadija man mu ne ko patron bi ni ko yow baal li ngay wax mu ne ko baal li ngay wax mu ne ko déedéet moom ci boppam moo la bëggal boppam nabi ne ko kii sëy ak atiq di milliardaire donn ca ay milliar mu jóge ca sëyëki hindi muy milliardaire mu donn ca ay milliards kii man nga xam ne yoruma moom moo may financé pour ma liggéey may jël sama bénéfice di séddoog moom di ko delloo capitalam may so eh, nafisa yow na da nga mën a mbalak da nga mën a caaxaan mais kii nan lay sëyëg man mu ne ko moo la bëggal boppam na bi ne ko ah man koy bëgg naa ndax te jigéen ju baax la ju ragal yàlla la ni ma ko gisee nii jigéen ju rafet jikko la ndax booba lislaam wàccagul mais booba ñu ngi jaamu yàlla ci diine imaam ibrahima mu ne ko kii jigéen ju sell la joo xam ne duggul ci dara mu ma ko amee tamit jël ko comme soxna mu ne ko mu ne ko du ci dara moo la mbëgg ñu defar diggante bi ñoom ñaar à l'âge de vingt cinq ans maa ngi dem jël nañu Khadija may ko Seydina Muhammad Khadija ko jox alal wa bil jazuuri rasulillahi awlamaha ma ni Khadija jël ñaar fukki gëléem boole koog xaalis bu bari ni ko dama la koy jox te kenn bu mu ko yëkk nga jox ma ko premier kado pour sagal ma sagal sa bopp jigéen ñi dégg leen boobu waaye Khadija jël na jox nabi nabi jox na ko mbali jël nañu Khadija may ko rasulillahi xam nga lu des maye ba ñuy maye nag xuwaylit baay bi moo toog ne du signé acte de mariage bi certificat de mariage mun du ko signé lu tax mu ne ko yow naa la may xale bii nga xam ne non seulement waxuma sax xale bi yorul dara mais yaa ko mag beneen bi mooy famille bi mu bokk yoruñu dara beneen bi mooy xale bi sax moom dafa wóorul ndax xale bi bi ko yaayam ëmbee ci la baayam faatu baa mu juddoo baa am 4 ans baayam faatu mu dem kër maamam am fa 8 ans maam ja faatu kooku na laa la koy maye ngay dee nag waaye booba it Xadija téeñi na ñaar te Sénégal nee nañu ku téeñi ñaar ku la ñetteel nga ñetteele ko waaye nag mu nabee ko suul kon loolu ay caaxaan la amul ki nga war a ténj rek ngay ténj maye bi jot na Xadija def invitation ne papa ji signéel mu ne ko duma ko signé waay kii duñ la ko may te bu signé wul sëy bi du am Xadija dóor papa ji muy naan mu koy jox muy naan di lekk yàpp di naan di lekk yàpp di naan ba maan Xadija ne ko papa ah benn waaye dani ma xanaa da ngaa ma sa man di ma ko wóoruma mu ma da koo man de ma ne ko ma daal wóoruma booba lang na papa di nga signé wala doo signé lu may signé mu ne ko Mouhamad mii Mouhamad mii ñu la ñu ma may laa bëgg papa nga signé ko mu ne ko signé rek jox ma big bi maay signé di signé di signé ba signé fu dara nekkul maanaam ma signé mooy lan mooy lan mooy lan ay sakraana min isami xaala kawnihi sakraana min isami ba muy signé mu ngi mandi mu signé ko mandi te gi rees ñu ne ko may nañu Khadija Muhammad mu ne amul ndax maa ko war a signé ñu génne kayit gi jox ko ni ko signature baa ngi nii mu ne ah kon man la xanaa moment bi ma demee réew ma la ñu ne ko mooy moment bi ga demee réew ma Alaaji Malick maa ngi dem vingt cinq ans nabi am na 30 ans damay ñëw ci yéen nabi ab na 35 ans 35 ans bi mu ko toj nañu kaaba gi di ko tabaxaat moo Xadija nag eh bàyyi naa foofu boobu épisode maa nga ca 35 ans. waaw 35 ñu toj kaaba gi di ko liggéey ñu ñëw ba ci ajarul aswat war a jël xeer bi teg ko. xeeroo jarul aswat pour nga dégg ma daal sërif pour nga dégg ma naa jël lii rek ma def ko ajarul aswat ajarul aswat mu ngi nii léegi problème bi ñu am ñoom waa Màkka mooy tabax nañu kaaba gaa ngi nii ajarul aswat fii la war a ne kan moo koy teg fii mbooleem famille am problème kenn ku ne ni famille sàggam du ko teg di ñu bàyyi day jël succès bi ñu ne nu ñuy def ñu ne léegi lenn rek lañ mën a def mooy nañ leen xool baabu salaam bunt bee ci kaaba gi ku fa jëkk a génn rek ñu jox ko ko xam ni chance am la mu tegal ñu ko baabu salaama gi nii ñu jekke rek baayu Fatima ni nii asalaamu aleykum ñépp ni Lamine génn na Lamine la Lamine la xale bii aka am wërsëg moo ko nar a teg de ñu jël xeer bi jox ko mu war ko teg fii mu ni luy problème bi ñu ni ko famille benn famille nanguwul beneen famille teg ko mu ni leen lu ngeen waxoon ku jëkk a génn teg ko ñu ni ko waaw ñu ne ko am yaa koy teg mu jël xeer bi ba téye ko ni kon maa ko war a teg ñu ni waaw mu ngi kaalawu ndax naar day kaalaw mu génne kaala gi tàllal ko jël xeer bi teg ci daan ni ana fami njaay yéen ki ci mag kaay nga yeen ku mag kaay ay dara ku mag kaay waaye ay dara mooy nandite barke rasulillahi njaayeen kaay kaay ay dara kaay mooy waa njaayeen a ngi noonu waa waa waa faaleen mu ñëw abdalaa ñëw kaay kaay a ngi noonu waa waa waa salleen kaay omar sall a ngi noonu léegi famille yëpp ñii ñoo représenté famille yi famille yëpp ñëw nañu xeer baa ngi nii xoolal ñoom ñëpp ñu jàpp téye di ñëw ba ci wetu fi ñu ko war a teg mu daal ni du famille yëpp bokk nañu léegi ndax famille bu ne am nga ci représentant ñu ni waaw mu ne kon bu kenn wax ni kii ko teg bàyyi kële jël koog loxoom teg fa moom rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nii la demee woon alaaji malik ne ay waay ay dara yàlla na la yàlla fay maam alaaji malik ne bi ñu tegee xeer bi ba pare Maodo ne maçon bi yore turéel bi di tabaxaat xeer bi xam naa ko mu alaaji malik nu mu tudd mu ni wasmu alladi xad bana albayta alazima lahum باقوم بالميم أو باللام فافتهمي اسم الذي قد بنى البيت العظيم بيت العظيم لهم واسم الذي قد بنى البيت العظيم لهم ليس أقوم بالميم أو بالله مفتاين ويا لكم وما في ربيرك من من بعد تاين هي وزيا أبدا أن محمد محمد أنا تصب ينن بفلني ينن تبي واسم الذي قد بنى إن أول بيت العليم له ببكة مباركة وهدى للعالمين سنزورك يلا خبي الجنة به آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا يا ننكو في الكدبن ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت جرجف وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا في ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin Mustafa boo demee foofa inna safa wal marwata min sha'irillahi fa man hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna allaha shakirun alim jërëjëf amiin yaa rabbi kooku yónneen wasmu lazi qad banal baytal azim lahu baqu bil miim aw bil laam waylan waylan wasalli yaa ilaahi soo bëggee yoon nan faaw nga bëgg ma waaw day mem xanaa moo am xanaanal amin tewri zakori jahraani min damin min muqlatin bidami yannan wasmul ladi xabanal baytal azima lahum باقم بالميم أو باللام فافتين وصلي يا إلهي وحدي وحدي صوبك يونان صوبك موضوع على محمد أنا المختار في واسم الذي قد بنى البيت العظيم لهم باقوم بالميم أو باللام فافتهمه أي درا وقت واجي جد <laughs> demal ba fajar mais dara incha suba nii ngay fanaane waat waaw waaye kenn du doyal demal Maam Alaaji Malick ne dégg yi bi ñuy way ñu ni boo bëggee yoneen faaw nga bëggaale Maodo waaye boo bëggee Maodo faaw nga bëggaale borom Touba mais boo bëggee borom Touba faaw nga bëggaale Cheikh na Cheikh Saad Bou mais boo bëggee Cheikh na Cheikh Saad foog nga bëggaale Seydina Limaamu boo bëggee Seydina Limaamu faaw nga bëgg ñu baax ñëpp واسم الذي قد بنى البيت العظيم لهم باقوم بالميم أو باللام فابتهم maam Maodo ne ci yéen laa jëm nag boobu nag moom xoola danga may jox rek ma delloo la waaw ndax waxtu wi jot na comme suba tey dugg nañ sax ci ci tey bu dee tubaab waaye suba la anniversaire u alquran te suba incha allah li ñu war a waxtaane ku mu rëcc gisuma la mbaaw incha allah lu ñu nar a def fii suba ñu ngi ñaan yàlla kuy jigéen na toog këram seetaan ko góor ñi lañu ñu invité nga xam ni day doon mbir moo xam ni ay góor yi kese lay doon jigéen ñi toog seeni kër xam nga lu tax du caagee ne ségrégation de mooy jigéen xanaa xamoo ni mu jullee këram moo gën mu jullee ji jàkka ja mu jullee biir néegam moo gën mu jullee ci ëttu këram mu jullee biir këram moo gën mu jullee ji jàkka ja looloo waral guddik laylatul qadri ñu ni dañu daan invité góor ak jigéen mais bii daal li ñuy def mooy bu dee laylatul qadri na góor ñi kese génn jigéen ñi toog seeni kër bu nga xam ni ñu ci du ñu ci tagalante xam nga nu ñuy def mooy dañuy sangu ba set jàpp ba sell muuru ba daj ndax ñoom dong ak seen néeg la yore seen kurus xoolal jàpp 2S fixé ko di déglu Chérif Maami mu lay wax defal ngay def say bakkaar di wàcc mu naan la defal ngay def say bàkkaar di ruus mu naan la defal ngay def ngay ñaan yàlla di nangu mu naan la defal ngay def ngay ñaan yàlla di nangu mu naan la defal ngay def nga gudd fan lool dee dem aljana ñu ne la lu lay indi aljana nga naan guddik laylatul qadr ga ma màggalandoo ak waa 2S ca direct ba ci la ma yàlla indi aljana yàlla nañ ko yàlla defal maam Maodo ne maçon bi tabax maa ngi nuyu di ziar Serigne Khalifa si mu Serigne maam Habib si mu Serigne Aji Malick maam Alaaji Malick ne maçon bi nga xam ni bi ñu tegee xeer bi moo tabax moo jël turéel bi dóor kon Ousmane Diop ba mooy sama maçon <laughs> moo Ousmane Diop la tudd mu ni déedéet nu mu tudd mu ni baaxuumu Abdou Bass xam nga des fois terminaison wu L ak M day indi problème léeg-léeg ngay wax nit benn si benn benn moo du ko xam nga ni ko f comme Fatou Pamara mu naan ah Pamara mu naan la nga ni ko Faa f comme Fatou <laughs> mooy wasmu alladi xatbana albayt alazima lahum baaquumu bilmiimi aw billaami faftahimi Maodo dani maçon bi ñii nee nañu baaxuum terminaison më ñu ni déedéet baaxuul terminaison la mu ne la baaxuumu bil miimi am na ñu ne terminaison wu noo ba miim la muy baaxuum ñii ne déedéet baaxuul mu ne aw billaami ñii ne nañ déedéet terminaison ba du ma waaye lan la mu ne kon am nañu ni baaxuul moo ne ca kayitu juddu ba ñii dañu ni kayitu juddu ba baaxuuma ca ne ñu koy woowee baaxuul ñii ne déedéet kayitu juddu ba baaxuula ca ne ñu koy woowee baaxuum Maodo ni turumason ba baaxuum la terminaison ma wala baaxuul terminaison la faf taxi mi déggal bu baax li ma wax boo ma nee comprendre nga comprendre yàlla nañu ko yàlla fayal magi Sénégal kenn du ñoom problème bi kay ñun la waaye yàlla na ko fi yàlla jële te nag yàlla na doon ay waxi kese rek ba wax ji yëpp deñ ndaxte nag coow li coow li mooy ay wax rek a fi ne ay ñeen ñooy ne di wax rek waaye yàlla na yàlla soppi seen kàddu yi rek ba kàddu yëpp àndu doon benn baat baat bi mooy ñëpp xam ne yàllaa fi ne muhammadu rasulillahi moom la mag ñëpp doon liggéeyal maam Maodo ne yéen ñiy seetaan télé bi nag maa ngi départ ak yéen 35 ans wu nabi alaaji Malick neen 36 ans 37 ans 38 ans sëñ Mbaye Kassé bul ca yàgg de 39 ans na bi nag fa lay départ ak yéen dem ak yéen rek 5 jours bu ko defee ñu ñaan yàlla suba incha allah ñu fanaan ak ci laylatul qadr bi mam Maodo lan la mu ne min baadi tain min baadi tain wala min summa sittati ashhurin raa kan fi la fi subhi lam yonent bi tàllal leen ñu ñaan tàllal leen loxo yi ñu ñaan min ba'di ta'ib wala min summa sitati as وحقق بالزيادة آمالنا كانفلاق سبحنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واخلق كوي واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واغلل للوين جدا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلدنا السنغالي وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين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

وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين أبدا يننتي عنا محمد ريم لنكو دمال مستوى وصلي يا إله واو أيوة لدفنه عنا waay gaay waay mayaat ma dafa neex mayaat ma bii dafa neex تذكر الأخوة وصليا يا إله ورا yonent bi abada ay yonent bi anna muhammad yàlla ñu fekk suba ak jàmm na koy firi wasalli ya ilah ay waay li dafa neex anna muhammad اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ay dara yal nañu fekke déwén. wallaay amiin daan yoonal. neex na ci man de. billaay doyaluñu sonnuñu doyaluñu waaye dafa di lu ne dafa am waxtu dafa am heure xam naa ni ñii bu ma bàyyiwul du ñu jóg te incha allah suba nag fan yi yëpp du bisu nelaw waaye subaa ci raw te boo leen téyee ba benn heure bi suba dinañu bëgg a toog du sotti ndax amuñu compétition bi nga am ay dara. yal na yàlla fayal ñu alaaji Njaay amiin waay amiin waay na fi jàmm sax amiin li yal benn ñaan rek benn ñaan rek waaw ñaanal ko alaaji Ablaay Seen ndeysaan boroom nabi céramique waaw fa tabaarakallaahu koy jàpp ci daara ji la ndeysaan moom ak colonel Cerno Soko yal na yàlla fayal ñu leen ak mbooleem ñiy jàppale daara ji amiin waa Mbuur docteur Mbargu Saw waaw Mbay Jóob Mbeng ak mbooleem waa Mbuur ñoom Pape Cheikhou Gueye ak mbooleem ñi nga xam ne ku waay mës a jël sa dërëm baa sa fukki dërëm nga def ko ci daara ju mu doon yàlla nañ la yàlla fayal ci barke alquran mbokk yi dama xam ni bu ma liñ may defal ci daara ji ma koy def ci taalibe yi billaahi wallaahi tallaahi mën na doon trente émission te du jeex te loolu taxul ngeen def ko déedéet loolu rek mooy tax hmm. waaye ñaanal lañu ñëpp yal na yàlla fay ñëpp amiin ku ma ci tuddit yàlla mooy dogal benn moment rek sama xel ne ci kenn bu ñëwee ci moment boobu rek automatiquement dama koy tudd ndax xam naa foofu bu ma ko ñaanee yàlla nangu ko mhm. mbokk yi yal nañ yàlla defal jàmm réew mi yàlla na am jàmm allahumma aslih lana diinana alladi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaana allati fiha maashuna wa aslih lana axiratana allati ilayha maaduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين. ولا مبلغ علمنا آمين. ولا إلى النار مصيرنا ومآلنا واجعل الجنة هي دارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا الله اللهم يا الله نامت العيون وغارت النجوم وأنت الملك الحي القيوم وقد غلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حرسها وحجابها wa baabuka maftuhun lissaa'iliin faha ana saalikun bi baabika musniban faqiran miskinan asiran jiitu antaziru rahmataka ya arhama arrahimina ya rabbal alamin ad'u bi bismillahi wal masaani wa ayatil kursiyyi zil baani wa suuratil ikhlaasi zit tamjiidi wa faada man maata ma'a at-tawhiid wa man da'aa bidhi ala al-yaqiin yujab bimaa raama min al-matiin mujiibu ya mujiibu ya mujiibu faqbal du'aa wajalin qariib amin ya rabbi Muhammad محمد وببنته وببعلها وابنيهم الستين أعلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى آمين يا رب العالمين سامبو باي خليفة كاميرا يلا يلا كويل الجنة آمين يا رب يلا يلا بيس اللي يربط كوم آمين آمين جرجف جرجف خالص جرجف آمين يا رب جرجف جرجف جرجف جرجف جرجف خالص ما شاء الله baal li ngay wax moo tax gisoo bi may dem li nga ma ngeen nii rek ma taxaw